man alquraan may sàkku ci yéen ngeen déglu bu wér wax ak yéen ku ma jàpp bu wér doo ma sareer ndax maa dig dëgg ay neen du ma rax ma su ma ma bàyyi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 di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tey ci ndimbalul borom bi subhaanahu wa taala ak tawfiqam ñi ngi dikk fii tey ci Islam TV tey jii di alxamis 25 Chaaban 1442 le 8 avril 2021 fas yéena door ak yéen émission bu yes fi ci Islam TV di jataayu Alqur'an jataayu Alqur'anul Karim di tolu Alqur'anul Karim nga xamni ni wu yaatu la nu ñuy def ba mën lire Alqur'an manam man ko ijji man ko jang jangin wu wér li ñuy jang nu ñuy def ba mokal ko waye nu ñuy def ba mu wér li ñuy tuddé tasxiixu tilawa njàngin wu ah ngeen fas yéene cee ànd ak seen doomi ndey seen mbokkum daara sëriñ Mor ñu ànd ak lenn ci dongay daara ji daara Muaaz ibnu Jabal euh, kii ci suñu ndeyjoor di Fodé Jànqe ki ci topp di Mouhamadul Habib Jaxabi kii sama wàllu càmmooñ Ismaila Siise incha allah du ñàkk yeneeni jataay yoo xam ni mën nañoo ànd ak yeneen i donga yeneen i taalibe euh, ci jigéen ñi wala ci góor ñi daara yaa Hafsa wala yeneen daara yoo xam ni sax ci yeneeni gox lañ nekk kon di programme émission bu ama am solo boo xam ni ñun ñépp nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax alquran moom xam ngeen ni mbooleem lu nekk ci kaw suuf moo ko féete kaw moo ko gën ndax ci li mu aju moo tax ndax xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu waxi suñ borom subhanahu wa taala kon danañ ci ànd ak gone yi muy donga yi waaye du ñàkk léegi-léegi sax bu ko laajee ñu ànd ceeg ay mag wala lenn ci masaayix yi ci sëriñ si nga xam ni seen xam-xam màcc na ci wàll woowu moo xam lu aju ci maxaarijul xuruuf xaraf yi benn bu ne fu muy génne walla lu jëm ci axkaam yi maanaam reegal yi wala sax lu jëm ci li ñuy jàng firi ko firin wu gàtt pour ñu xam maanaa yi wala lu jëm ci nu ñuy jikkoowoo jikkoy alquran wala teggin yi nga xam ni moo aju ci alquran kon daal nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñun ñépp ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala defal ñu ci tawfiq mu nekk loo xam ni lu sell lay doon lu barkeel lay doon loo xam ni ñun ñépp danañ ci mën a jariñu tey ak ëllëg kon dangeen tey nag euh, dañuy njëkk ci alistiaada teg ci basmala daa di door tàmbali sooratul faatiha xëy na ba mu xaaj beneen yoon bu ñëwee insha allahu taala ñu eggale ko kon tey tasxiixu tilaawa la ànd ak yéen ci sooratul faatiha kon ngeen déglu bu baax ni may jànge eh, ni ma ko waxe ngeen waxe ko noonu wala nu ko gën a rafet kon bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ngeen باي xel a a au au zu zu zu zaal boo koy wax mu loolu daal boobu am tomb ñu koy tuddee zaal sa catu làmmiñ day tege ci catu bëñ yi ci kaw nga mel ni lu ko ci xaw a bës tuuti za zu zu au au bu wax au au au auzu bil bil بالله بالله بالله بالله منش منش من الشيطان من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اسم الجلالة مي turu suñ boroom boobu subhaanahu wa taala ñuy wax allah su ko kasra jiitoo muy li ñuy tudde maskayat ci wolof mhm. joxal kii li ñuy tudde ci wolof bis mi boo xoolee mi bis mi bis bis mi mi loolu kasra la mil laa laa ngay wax doo wax loo doo ko tafxiim maanaam da nga koy sewal mu ngoog loolu ñu ciy bàyyi xel su fekkee nag li ko jiitu fatxa la maska yat ci kaw wala domma muy maska lonk bu boobaa dañ koy taf xiim allah allah hmm? mu ngoog loolu ñu bàyyi ci xel kon bismil bu wax bisimi am na ñoo xam ne bisimi la ñuy wax bisimi bismil bismil bismillahi rox arrox arwah dañ koy tafxim do rah arrah arrah arrahmanir rahim boy taxaw mim bo ci taxaw sa day ubbe am am me bo ubbe sa rek an moy ñew ma jox la misal bo xon arrahin gis nga sa tuñ yi boba an ngay jang me am bo ci taxaw rek sa tuñ day ubu

رب العالمين الحمد لله رب العالمين nga foofu ci nuun nga taxaw an sa tuñ ji day ubbeeku alaalamiin gis nga sa tuñ ji du ubbu day ubbeeku day ubbeeku bu ko defee nga mën a wax ànn bi mais bu tuñi ubboon rek am mu ngay wax loolu ngeen bàyyi ci xel ñu bëree bëri eh, duñ ci bàyyi xel alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bañ a waxit alham alhamdu ndu ndu kenn du wax ndu du la ñuy wax du du الحمد كانوا الأمد ح الحمد دو دو دو كان دو دو دو الحمد الحمد لله رب ال ر ر رب العالمين دقلوا عدلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين maaliki yawmi ddiin. maaliki yawmi ddiin. maaliki yawmi ddiin. foofit mu leer bu baax ba ñu wax mbaaliki mbaaliki maa maa maa mu leer nañ maaliki yawmi yawmi ddiin ba ñu wax yow mit bañ ko jànge itam taa yow mit mais yow mid ad ad yow middiin maliki yow middiin maliki yow middiin إياك نعبد وإياك نستعين نستعين إياك نعبد وإياك نستعين boo xoolee foofu iyaaka dafa am shadda day mel ni ñaari yaa benn bi nekk sukkoon maska néeg benn bi nekk fatxa ñu boole ko i ay i i i bu wax i bul ko xëcc mais bu wax iyaaka am na ñoo xam ne iyaaka rek la ñuy wax iyaaka naabudu wa iyaaka wa bi duñ ko jàng i ay iyaaka iyaaka iyaaka iyaaka iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin na bu bu na a a ayin bi génn bu baax na naa budu ba naa budu naa budu mais naa a naa bu du naa bu du naa budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baax na kon dinañ déglu Fodé nga jàng soo noppee jox Mouhamadul Habib jaxa bi mu jàng soo noppee jox Ismaila Siisa mu jàng li ma waxoon da ngay commencé audu billahi ba ba fii ñu yem nastain njàng mu neex mu baax waxal ci kaw ñu dégg audu billahi min leer a a a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 bismillaahi rahmaan bu la koy taf xiim hir laa bismillaahi hir الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بخاطر إياك إي إبلير ببا إياك إياك iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maasha allah joxal muhammadul habib ay wax ci kaw nag a'udhu billahi minash shaytanir rajim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 Ar-Rah Ra Ra Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين mhm. kon ngeen déglu bu leen wax da ngeen di déglu nag man ma jàngaat ko njàngin wu wér ngeen dégg kon déglu leen bu baax ni may ni ma koy waxee audu billahi min alshaytani rrajim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين kon mu ngoog léegi del bàyyi xel bu baax a baax xaraf bu ne niñ koy tudde niñ ko jànge soo ko bëggee mokkal nag danga koy déglu déglu bu baax ba ni nga koy jànge wér bu ko defee nag nga jàng ko ay yoon mën nga koo jël aaya par aaya bu la neexee bu fekkee boo boolee lépp doo ko gaaw a mokkal danga koy jël aaya par aaya aaya bu ne mën nga koo jàng ñaar fukki yoon wala fanweeri yon, soo ko mënee jàng sax téeméeri yon, so noppee boole lépp nga jang ko moom it ay yoon yu bëree bëree bëri bu ko defee nag nga soog tari waaw kon macha allah kon tey eh, ngeen bayi xel li ñu tudde al istiaada at taawus mooy wax audu billahi min ashaytaani rajim bala ngaa commencé jàng alquran dangaa war a wax loolu waaw loolu ngeen bàyyi ci xel euh, li ñu tuddee basmala ah te mooy bismillahi rahmani rahim ngeen di fexe muy wér ñu bëree bëri dañ koy tàmm ba nga xam ne bismillahi la wax bismillahi bismillahi bismillahi loolu du dara bis bismillahi bismillahi mu nekk lu lu wér bismillahi rahmani rahim lépp looy tàmbali rek boo xamut ñaan ga ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale waxal bismillah bismillah lépp looy tàmbali lépp looy def rek waxal bismillah waaw bañ a wax nag bisimi wala bismillahi bismillahi ngeen bàyyi ci xel bismillahi rahmani rahim loolu la ñuy tuddee basmala bu ko defee nag ngeen ñëw nag euh, commencement tàmbalikaayu suratul fatiha bi alhamdu alhamdu lillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maa maa bañu wax mbaa iyyaka banyak iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kon xam naa fii la ñuy ak yéen ci suñu bindu bu di dërs bu njëkk bi ci commencement suratul fatiha kon ñi ngi tàggatoog yéen ba beneen yoon ci beneen jot jataay ci suñu jataayu alquranul karim ñu mottali li des ci suratul fatiha subhanaka allahuma wa bihamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ak bum laa buur yàllay ki ma yoor ay jaamam ngir kenn bañatee nuur ci caaxaan ak seytaane du am li mu bëgg ci nun ku matee am ndam man nga ngannaay laa kuma ngannaayo kenn du la narmeel dooma sa fuuyu